waaw tey jii moom euh, bés bu rëy la rëy rëy ci commune la pour une première lii mës am maire bi ak enseignants yi ak délégué de quartier bokk benn bés di wax ci affaire école te école mooy lii gën a am solo ci àddina nit ku am ku jàngul du nit tey jii nag. comme ni ma koy sànq rek bés bu rafet la depuis 9h nous ngi toog fii jusqu'à 13h nous waxante dëgg pour que école commune yi yi nekk ci am neuf écoles yi nekk fii ci école publique yi ñu suqali leen amuñu nag seen pay parce que euh, la defal lu baax wax directeur d'école yi nekk commune nous ñu ngi saluer li alune Mar def ci école yi yalla na ko yàlla fay léegi nak li ci gëna am importance moy que suñu assemblée bi ñu def tay di ñun délégué de quartier yi xamné ñom la population yaakaar tek seen kanam ñoy porte combat bi bëggatuñu école di ndox di fa ta wala di sen léegi duñu bëgg moy que population yi duggal seen loxo ci école am nañu fi duggoon ci APE yeeg yoyu mais doyut légui nak délégué de quartier dañ ci wara a bu baax a baax affaire insécurité bi nak lolu mom c'est un problème national. insécurité du fi rek école yi nak li fi am moy que du élèves ñoy def lolu mais personne extérieure ñoy ñooy ñëw dugg ci école yi ah lolu nag bu mu am nak c'est que euh, dañu sécuriser wul école yi école dafa war am gardien am porte yo xam dañuy fermé wu bu ko défé nit du mën a mais bu fekkente ne école bi nak dañ ko bayyi noonu rek à ciel ouvert ku mu neex day dugg loolu moy moy loolu problème fondamental il faut que ñu sécuriser ko sécuriser nak moy que ñu ay gardien limay may gis fii li si maire yi fi suñu boss bi ak yenen yi lu mat juroom juroomi ASP nekk ci mais ASP yi nekk foofule man nañu école yi nekk fii ay huit lañu xaw neuf ñu jël détaché 9 ASP bu nekk yóbbu ko foofu ci école yi du dara. école a samb nag Il nekk A ci Ndeppe ci booru géej école boobu man mii fa laa école en 1949 bu 1956 man école bi école la école un te jokkul mu ngi tudd mu ngi dëkk mu ngi bokk ci commune Rufisque Ouest mënuñu mënuñu li ñu def nii nag découpage bi ñuy def bu yóbbu ko foofu ci commune Rufisque Rufisque Ouest population jokkul du kenn ku ci ànd du kenn ku ci ànd li ñuy kii nag du doole du dara du ñu def ay manifestation pour loolu des dañ ci waxtaan lañ ko sumba ñu ngi ñaan na yan na ko yan ko yàlla euh, sottal wax nañu sax maire ci boppam nekk problème boobu bu sa dugal sa loxo conseil ministre yi su bu leen si dugal sa loxo dañu bàyyi problème bi délégué de quartier yi ak imam yi xam ne ñoo nekk ci zone jokkul bi ñu porté ko waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal pour que jàmm am ci daal. école moom cadre éducatif boo xam ne bu demee ba ay yeneen mbir di ci rax moom dafay xaw a doy waar daal parce que lu ci mel ni ay nit ay ñeneen di fa ñëw ñu bokkul foofu sax si affaire bi di fa def di fa jëfandikoo yoo xam ne moom kenn rafetloo ko. Hein, ci milieu bo xam suñuy doom fa lañuy jàngé loolu euh, ci xawna doy war donc yoyep ci walu sécurité aussi waxtaan nañ ci waxtaan ci walu infrastructure ak yenen ak yenen ci école yi nga xam vraiment gis nañ ne ci walu euh, sécurité am nañu ay jafé jafé mais loolu yep aussi euh, tay waxtaan wi firndel na ne war nañ ci jël ay matukaay et je crois que ñi fi teewoon ñëpp nek ay acteurs muy euh, communauté éducative bi ak délégué de quartier yi nga xam ne ñoom ay auxiliaires du maire la ñoom ñëpp engagé wu nañu résolument ne ñoom dañu fexe ba jafe-jafe yooyu dañ